salaamaaleykum wa rahmatullah bokk internet yu Senfootball TV amati naa mbégte defal leen benn vidéo bu xamante ne nag sur Boubacar Kamara lay doon parce que moo nekk ci actualité euh, jamono bi dama gis ne entraîneur espoir du France Ripoll moo ngi poussé euh, Boubacar Kamara équipe nationale du Sénégal sama yaakaar de jour en jour franchement damay gëm ne booy bi de mu ñëw équipe nationale du Sénégal donc jox naa fa explication yu leer wax naa leen foto boobu def ak euh, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng bu mu def ak Pape Gueye ay dàllam na si vingt douze expliqué naa leen page bu Facebook bu Olympique de Marseille muy doxalee par rapport ak Boubacar Camara à chaque fois drapeau Sénégal lañ ciy def et tout man damay am confiance maintenant bu jëlee information yi fi mu jiw xam nga waa France dañoo joxe seen espoir seen liste euh, waaye liste bi la soit l'équipe du soir xam nga plateau bi ñu si wax na euh, am na ñu xamante ne day xam nga lu ñu bëgg a décourager au Sénégal su ma ni Nabil Djellit mais Nabil Djellit ñu xam nañ ne algérien la d'origine donc euh, ñun suñu équipe bu baax loolu du njëriñam bu suñu du ñu am ay joueurs yu baax donc moo tax loolu jour mu naan non ñu bëri ñoo koy wax Sénégal ñun ñoo ko wax Sénégal nañu waxante dëgg man man de man naa taxaw fi ma taxaw ni vidéo bi may def nii bokk naa si ñi si njëkk a def vidéo ne euh, Boubacar Camara en team du Sénégal donc man bu ma waxee bind sino yi may wax yëpp daanaka dama naan Boubacar Camara laa si gën a xam ndax équipe bi mu nekk équipe boobu laa faral du ma ko nëbb mu Olympique de Marseille seen i match yëpp laay seetaan 90 minutes man man mën naa bañ a match yu bëri mais match Marseille moom du ma ko tardé c'est club de cœur moo tax ma bëgg football Marseille bu ma ba exister tout est-ce que dinaa bëggati football est-ce que dinaa amati am donc man Boubacar Camara à l'âge de 15 ans laa ko xam bi may xam Boubacar Camara fekk ne ñëw sax équipe première bi donc xam naa Boubacar Kamara moo tax ma teel a interpellé fédération sénégalaise de football parce que c'est un joueur bu xamante ne crack la c'est un joueur bu xamante ne li ngay wax à chaque fois Nasri bi mu jógee Olympique de Marseille dañ doon wax ne euh, ki xamante ne am na talent benn bi ki xamante ne gis nañ ko mu nekk si équipe yi gën a mag euh, Angleterre wala ba Espagne wala Bundesliga xam nga c'était Boubacar Kamara actuellement jamono boobu il avait 16 ans di nekk capitaine si petite catégorie yu yu Olympique de Marseille donc talent am instant yi feeñ avec euh, kenn laa ko mën a waxee avec Garcia mu tekk latéral droit premier match ceso contre Soso la Coupe de France nous jouer le droit après nek na fi euh, teg nañ ko défense mais défenseur central de métier la ni tek ko milieu terrain avec André Villas-Boas tout le temps titulaire avec euh, entraîneur bi fi Saint Paul ni koy tek titulaire avec Largué tout le temps titulaire donc nek na joueur bu xamantene ay qualités ni leen ko wax man dama gëm na jamono bi équipe nationale du Sénégal mu fi ñëw dé titulaire carrément parce que dem rek saa naa benn match moom mu dajeeg ñoom kii ñoom Pape Matar Sarr mais tu vois le niveau Pamata Matar Sarr extraordinaire un joueur bu xamante offensivement mën na alimenter son attaquant mais Boubacar Kamara franchement c'est au-dessus quoi c'est au-dessus c'est un joueur bu xamante ne crack la euh, kii nag Ripoll nag mooy entraîneur espoir de France explication yi mu jox dayul kenn franchement que ça soit les supporters de Marseille que ça soit entourage bu Boubacar Camara franchement dañoo kontaan ñu benn yoon gis ngeen certique li mu si wax mooy ancien joueur bu Bordeaux nekkoon Olympique de Marseille bu Boubacar Camara sax ñoom ñaar mës nañ leen teg si défense xam donc doonte milieu terrain mais si plateau les football club nee na ak kii euh, si kii waxtaan na ak Boubacar Camara mais franchement dafa am benn déception bi maintenant lan moo tax ma gën a wax ne mu ngi koy poussé euh, vers l'équipe nationale bokk na si

ba tey taxawul am na trois fois trois jours yu remplacé Boubacar Kamara bokk si ak talent bi mu wan ak euh, gars yi la ñoo ngi expliqué Awar Kakare ñoo ñuy expliqué Awar Kakare ak euh, Kamavinga te l'autre jour expliqué naa leen euh, que ça soit Kamavinga saison catastrophique bi avec avec Rennes ñoo ngi ko doon xaar bu baax a baax franchement si bu xamante ne Real Madrid moo ko doon laaj. Euh, que ça soit Kaka, la deuxième partie saison de jouer, on peut dire que les 10 derniers matchs, il a commencé à jouer. Il euh, euh, n'y a personne. Donc, à part Boubacar Souma, il a fait saison excellente. Boubacar Kamara, il a fait une peut-être joueur yi Monaco ngay wax xam peut-être ñoon ngay wax mais à part ça ñëpp gisoon nañ ne day toronoo équipe nationale France maintenant nag ñun opportunité la li may wax à chaque fois joueur très talentueux c'est pas pourquoi c'est pas à chaque fois li tax may continuer di insister dama seetaan ñoom ñëpp Boubacar Soumaré Soufiane Diop keneen ak keneen même man Boubacar tamit c'est un profil qui m'intéresse c'est bu xamante ne bés bu ñu ko amee équipe nationale du Sénégal yi dinañ fàtte milieu yu bëri te boobaa naa ne Boubacar Camara nag mi maa Boubacar Camara te boobaa gars yi dinañ comprendre mais wax ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis euh, di jégalu si xar seet xam nga vidéo yi noonu la mën a demee euh, di leen jaajëfal di leen wax ba beneen sur seen Senfootball TV